ñaar fanweeri ak juróom-ñaar ñoo jot nii ay chèque ngir daal di tàmbalee fay seeni bor agence sénégalaise couverture sanitaire universelle dañ ko tëggaat ngir mu mën a def lépp lu ñuy xaar ci moom si lu yàggul agence bi rôlam moo nekkoon di taxawu mutuel de santé yi waaye tamit di gérer li ñuy dippee régime de gratuité des soins maanaam ku dem l'hôpital faju te doo fay dara tey jii agence bi am na mission bu bees maanaam dafa war a taxawu ministère de la famille et des solidarités ci lépp lu jëm ci wàllu protection sociale ci wérgu yaram fan yi dañu dajeek hôpital yi ak centre de santé yi pour waxtaanaat ak ñoom ndax gisoon nañ ni njaboot gi depuis quelque temps euh, ci fan yi yëpp euh, amuñu li ñu soxla bu ñu demee ci hôpitaux yi ndaxte dañ leen ameeloon xaalis maanaam agence daf leen ameeloon xaalis ndax fayul woon pour mag ñi nga xam ne am nañ juróom benni juróom-benn fukki at jëm kaw wala gune yu ndaw am diggante eh, benn at ba juróomi at wala ñi nga xamante ni ni ñooy femme yi war a def césarienne ak yooyu ñooñu amoon nañ jafe-jafe ci centre de santé yi ci hôpitaux yi ndaxte eh, eh, agence bi fayul woon hôpitaux yi loolu moo tax fan yëpp ñu waxtaan ak ñoom toog ak ñoom ku ci nekk ñu xool ñaata nga ngay laaj ñaata nga ni moom lañ la ameel ñu xolaat facture yi. bi xew-xew dafay wane partenariat bu bees bu dox diggante agence bi ak prestataire de soins yi maanaam ñiy yëngatu ci wàllu paj acteurs yi ñoom ñëpp a dogu ngir askan wi gis seen bopp bu baax ci l'hôpital yi te seenum paj gën a jaar yoon te mucc ayib ba tax ñi nga xam ni ñëw nañ toog nañ waxtaan ak ñoom ba commencé leen fay tey li ñu jàpp mooy bu ñu xoolee det bi yëpp xëy na ñu ngi ko xayma waaye balaa ñu ko xam mooy ñu pare xëy nañ may ko ci fukki euh, milliards ak juróom waaye ñun décidé nañ ci agence bi ak euh, instruction yu ñu jot ci ministre bi mooy fay lu tollook fukki milliards. ministère de la famille et des bokk na si liñ ko sas maanaam mu xool bu baax bàyyi xel couverture sanitaire universelle waaye tamit lii di protection sociale ñi nga xamante ne nii seen loxo jotul seen gannaaw. ministre de la santé et de l'action sociale ñëwoon na bokk si bi ñuy joxe yile chèque ngir ñu fay bor yi ñu ameel opiteau yi. jëwriñ ji daal dinay fàttali bu baax solo bi couverture sanitaire universelle daal di am hôpitaux yi ak centre de santé yi ak poste de santé yi dinañ leen fay lu bari ci liñ leen ameel au moins 70 pour cent pour que activités yi nga xam daan nañ ko def paj mi nga xam ne daan nañ ko def pour njaboot gi ñu mën a continuer di ko def CNCSU di agence bi ñu dénk lépp luy couverture sanitaire universelle daal nay fexe ba ñu fay lu ëpp ci bor bi ñu amee loon hôpitaux yi ci geneen wàll gi daal dinay signé beneen convention ngir ñu fay ba mu jeex tàkk yooyu la bor waaye tamit beneen convention daal dinañ koy signé ngir ay achat de soin maanaam agence bi dafay fay hôpitaux yi laata nit ñi di ñëw di faju liñ ci jublu mooy fexe ba hôpitaux yi di dox ni mu waree te kenn du leen amel benn bor